voilà euh, ñu ngi ak euh, Abdou Karim Gueye yaa ngi en direct ak euh, Sénégal set gannaaw point de presse bi mel na ni am na loo xam ne desandi na lu ñu war a jëb jottali askan bi lu mataleegul loolu lu mu doon. waa déjà dafa am lu am solo loo xam il faut Sénégalais bàyyi ko xel moo di ne lii loi yi ñu bëgg a suba ñëpp gis nañ ko. je crois que ñoom li ñu def dafa explicite leer na nañ. en tant que député yoo xam ne ñu représenté euh, Sénégal Assemblée nationale di représenté peuple bi foofu noonu donc alors ñoom en fait peut-être am na engagement yoo xam mënuñu ko jël mais dafa war a am mot d'ordre bi ñuy voté loi euh, bi ñuy voté loi wu ko pour nit ñi am problème am accès Assemblée nationale Macky Sall day foofu yëpp yàlla police partout Sénégal bu nekk na xam ni même loi yi ñuy voté nii sax ci wàllu communication réseaux sociaux bi alors lan la ñuy xaar pour joxe mot d'ordre pour wax sénégalais yi ku nekk fa nga nekk ci Sénégal foo nekk Dakar na nga député yi seen kër la ñuy jógee pour am accès assemblée nationale assemblée nationale ak seen i oto na tal yëpp taxaw na ñëpp yi génn manifester loolu mooy dëgg parce que Macky Sall dictateur la soxlawuñu assemblée nationale amul dara lu def foofu ku nekk fa nga nekk na nga foofu na sénégalais yëpp jug ñu manifester contre lii nii sinon lii musiba naaru laay la loolu mooy wax ci au fait donc kon bu ñu wooyee fii ñëpp ñu ñëw dañu war a joxe moo dorlu ne Sénégalais yi jóg leen suba à partir de huit heures na sept ci fajar na ñëpp jóg cinq heures du matin na Sénégalais jóg ñu manifester droit constitutionnel la bu bu oto yi jàll bu kenn dem bu kenn ñëw na Sénégal taxaw loolu mooy kàddu gi jërë ngeen si taxawaay boobu ngeen nekk yéen dañ koy def demain. incha allahu rabi loolu mooy message bi c'est-à-dire message loolu la ñun dañ siy taxaw donc ñuy wax képp ku gëm ni Sénégal avenir du Sénégal si loxo peuple bi la nekk ci loxo jeunesse bi la nekk les patriotes na ñëpp jóg ñu manifester suba soxlawuñu assemblée nationale amuñu lu ñuy ñu fay def nañ leen bàyyi ak assemblée nationale ñu fexe ba Dakar taxaw ñu fexe ba Sénégal taxaw fu waay nekk na nga fa génn manifester wane sa mécontentement ak loi bi nii te manifestation waru yem suba ba keroog ginnaaw ngi ci